waaye bu ñu ko laajee këram fan la ci ci émission dafa wax ni xamul këram fu mu nekk daal xaw ma Dakar la xaw ma fenn daal mais moom jàpp na ni mu ngi ci biir këram demul euh, regañee fi nga xam ne fa lañ ko yóbbu. waaw man foofu daal li ma fa li ma première remarque bu may am ci wàllu boobu Madane Touré mooy que euh, man rafetluwuma ci ci dëkk bu war a dox ci yoon te loolu warul nekk loo xam ne dañ ciy xeeb sunu bopp ñun. Mm-hmm. jàpp ne tey africains yi walla Sénégal.

Europe am na ay temps Moyen Âge tànnuñu woon kenn. Hmm. tànnewuñu woon kenn Moyen Âge Europe ndaare lañ jëloon pays musulman yi ñoo leen rawoon ci yu bëree bëri ay hygiène publique ak ay euh, statut jigéen la femme nangam nangam. ak yu hmm. bëree bëri waaw góor góorgóorlu euh, après di di di xam lu baax souvent dama ne ma leen su ngeen demee ba lu baax ngeen ne yëfu tubaab la foofu ngeen juume tubaab dafa xam ne lii baax na mu def ko wala li mu nekk tubaab moo tax mu baax déedéet. tubaab dafay yëngatu di dugg di génn di dugg di génn bi nga xam ne lii baax na mu ne xaaral ma def ko dem wër àdduna bi yëpp di xool ba léegi ci loolu lañ nekk di def ay recherche am ay laboratoire ah di évaluer et cetera loolu du yëfu tubaab. Mhm. donc ay jaar-jaar la ak ay démarches tant que nangu jaar foofu ñu nit dinañ fi yàgg la preuve mooy bu fekkoon tubaab bi rek ñooy def loolu lu tax chinois yi di ko def léegi lu tax japonais yi di ko réussir. lu tax ñeneen ak ñeneen di ko réussir yeneen askan yoo xam ni tey jii Malaisie pays musulman la ça n'a rien à voir ak Sénégal ni mu organisé woo te pourtant pays musulman lañ comme ñun Turquie noonu ñeneen ak ñeneen donc il faut que ñu def attention euh, ci yooyu ba léegi xool nga si tu es propre am sa agenda. Hmm. respecter heure ñu ne dafa tubaabee. wala <laughs> lu tax duñ wax dafa par exemple dafa jullite parce que par exemple set du lislaam jàngale na rendez-vous kaddu la rek boo joxe islam waxul nga sàmm sa kaddu. Hmm, si ah? si euh, bañ tankal tànqal nit ñi islam santaanu ko gàddu àq islam waxu ko keroog du wax nañ ci. Hmm. yow.

buy jouer rôle parti politique opposant le journaliste buy jouer rôle euh, chargé de comme le pouvoir loolu man ñaawlu naa ko trop. Mhm. te am na fi Sénégal xaw ma yeneen pays africains yi côté boobu nous mu mais fi nga gis pouvoir au pouvoir nga am tous les moyens. am sa chargé de communication. am ak yu bari bari waaw yo xamni meun nga ci génne information yi nga soxla ba pare mu am ben wala ay quelques journalistes yo xamni ni lay waxal danaka di la xolol di la défendre nangam nangam te ñoñu bo leen waxé ñu ne no man bokuma ci parti bobu waye dama xamante ak président bi rek sama xarit la sama way la yeen say ñu rérando nangam nangam lolu pays européen ku mel nonu duñ la jox ben crédibilité duñ la duñ la tere ngay bind di wax de. mais do am ben crédibilité ci. paysage médiatique bi parce que dañuy xam ne euh, comme féete nga fële euh, say mbir du mën a euh, mucc ayib bi aussi nga gis ay journalistes yoo xam aussi ñoom beneen côté ba lañ nek. daanaka ñooy gën a virulent ci pouvoir bi que parti politique yi nekk dans l'opposition alors que loolu tam du seen journaliste cëram mooy les faits ak proposer et analyse mm-hmm. et cetera et cetera ak lancer et alerte, bu ko neexee. Mm-hmm donc loolu déjà problème là. donc man par exemple ku mel ne Madiambal Diagne bon et eh, pouvoir Abdoulaye Wade pouvoir Macky Sall eh, da nga don foog sax des fois chargé de com la ci ba pare di damoo seen xarit la nangam ak nangam pour man déontologie li mu ak recul bi mu laaj ci journaliste bu bëgg garder sa crédibilité Do, do egg fofu ci pouvoir bi nek en place. non mais bu dé ay Europe France ak menoon neen ñu gis la nga jël diiné ak ki nek ci pouvoir bi rek yow say dañ lay soupçonné moi tax journaliste yi nekk foofu du def yoy même même entretien yi sax dafa am nuñ koy jaarale ba nga xamni du nek affaire copain copain copine etc euh voilà donc lolu comme ni mako waxé nek côté bële aussi même les journalistes opposants non société civile tam nañ jouer sen rôle société civile même chose da ngay gis ño xam société civile lañ nek mais li ñuy damoo toujours moy premier sama xarit la président kéro gis n'a ko waxtaan nañu nangam nangam ki après non société civile war na am aussi ben dignité bo xamni pour me protéger ko il faut que mo am distance entre pouvoir bi ak ñoom am na benn société civile bu yàggul boo xam ne Sénégal gis naa ne léegi presque euh, seen mbir yëpp doxatul te ba ma leen gisee ba ma gisee ka ko jiite commencé di toog ci table bi ak koo xam ni conseiller président bi la di ko invité ci réunion bi rek laa xam ne lii dootul dem parce que ñi nga xam ne dañuy bañ loolu te nekk société civile boobu du nangu lii gis nga yàq liggéey bu am solo te société civile boobu ma lay organisation boobu mm-hmm. bu amoon naa ci yaakaar te na solo donc nañu moytu yooyu euh, ñoom ma jàmbal keneen keneen pour man nañ jouer ce rôle de journaliste maintenant su ñu nekkee dans la scène politique maintenant engagé wu d'accord, accord ñu engagé politiquement li leen ñu dal ci affaire politique dal leen comme ñëpp euh, li ñu bëgg a tamit ci yoon ñu ko fa euh, défendre ci yoon jàmm nañu. parce que mon tey jii nii mun nañ ko euh, placer ci li xam homme politique ndax effectivement comme léegi mi ngi ci liste. mu ngi ci liste candidat la. waaw Mamadou Ibra Kane bi songu ci politique wax na déjà ni mom lepp li nga xam mom moy walum journaliste daf ko suspendre. en attendant mu dugg ci li nga xam ne j'ai trouvé que proprement la ko def. parce que kok il fait partie justement pour man. Mhm. des des des rares actuellement yu respecté déontologie journalisme. moo mhm. mu xam ne mënu ko boole ak loolu diko ko ne def ay entretien mhm. hein alors que il est partisan. voilà voilà un bon exemple. parce que déjà né demain demain c'est l'avenir dem na ba soutenir ki nga xam mom moy mooy. Euh, Amadou Ba ci. kan moko meuna mën jam ci lenn ci lolu voilà kon tamit nag euh, je pense que il faut faire attention à à ça mais à kulli hal man daal ça me position mooy loolu rek quoi je suis légaliste c'est-à-dire que euh, ku ku ku mu neex accuser lu la accuser ku la neex waxal lu la neex mais ala kulli hal, buñ la yóbboo ci yoon daal nga indi say dossier ak say avocat lijjanti ko foofu en parlant de société civile sànq ni yaa don ko doon junj sax gis nañu ni ki nga xam Alioune Tine euh, woote na semaine bi passée pour violence yi nga xam ne nag nemmeeku ko ci langu politique bi ñu wàññi ko bu baaxa baax muy artu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ci yëngu yaakaar naa ni euh, société civile yooyu noonu dañoo war a mën a euh, génn à chaque fois di di cee wax. waaw effectivement effectivement te dafa war a ndax sax génn génn génn bu am solo daal benn say c'est-à-dire que ni am na d'ailleurs benn grande association boo xam ne man fréquenté naa leen tuuti c'est vrai que après euh, ma am yeneen dossiers yu gën a urgent yu.